dal li nag jàmm mbokk internet yi ñi nga xam ne rek yéen ngi ñuy teelu saa su nekk ci ay xibaar rawatina nag actualité bi nga xam ne rek ñu ngi koy topp ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di candidat yi bile yoon nag ci candidature kii di Bassirou Diomaye fay la ñuy daal di dellu si war rek moom mii nag gannaaw ni ki démb ba mu daal di dem rek foofule ca diwaanu Ziguinchor ci àndandoor ki nga xam ne moom moo di président Ousmane Sonko ma nga xam ne rek moom moo di mairie ba mën nañ ne ci mitin ba nga xam ne rek daal di koy jot amal ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo fare foofu la ca diwaanu Ziguinchor seeni kàddu yoo xam ne rek jot nañ ko faa yëkkati ci développement wu réew mi donte le nag ñu baree bari daal di waroo ak ñoom xalaat ku ci mel ne président bi nga xam ne rek moom la ñu daal di samp pour nag mu daal di jiite APR di amadu Ba mi nga xam ne daal di na leen di jot a njaay ceekee gannaaw monnaie bi nga xam ne rek ñoom jug nañ pour daal di koy changer te mu yosee fa bi mel ne nag jamono bi ñu toll nii dafa mel ne ay sànnante xeer moom moo dox ci ak ki nga xam ne rek moom moo di Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye wante lu ci manti am ñoom ña nga daal di fétal li nga xam ne rek moom moo di seen caravane ci jamono bii ñu toll nii ba tax sax ña nga doon xamle kene kat jamono bi ñoom ñoo moome lii di réseaux sociaux yi gannaaw ay sondage yoo xam ne rek dañoo gis mu daal di génn ñi jot a xamle ne kat lu mat dix régions fii ci réew mi di Sénégal ñoom mën nañ ko dal di gagné ba tax ñu gis ne soixante cinq pour cent war nañ koo mën a am ci élection yi nga xam ne nag deuxième tour du am premier tour ci la ñuy daal di faagaagal li nga xam ne rek moom moo di kart gi jamono bii ñu toll nii nag yeneen kandidaa yi ñoom it lànk loolee ba tëdd ca naaj wa nekkat dinañ def seen kéemtalaay kàttan bakkat mbir moomee nga xam ne rek ñii di Pastef les patriotes jàpp nañ ko xalaat ko nekkat ñoom ñoo moom élection yi ne loole du ca dal ndaxte ñoom ñëpp ay kandidaa lañ te ko ci nekk mu ngi ci terrain bi di bay sawar mbir mi ni mel gënoon a fës seen chaîne YouTube leen di abonné